asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci MKTV eh, di am mbégte ci laaj bi liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy def fii ci résidence bii di résidence Xaadim Rasool bii ci kër Sëñ Touba gi ci jumaa ji eh, bëri na ay membres ñeenti coordinateur ñu ngi fi man nag man may coordonné kër gi ci liggéey bi nit ñi li fi daayira bi di liggéey mooy accueil hébergement c'est pour muy tarixa yi nekk ci réew mi yu ci ëpp fii la ñu dal ak station islamique yi am na ci yu bëri yoo xam ne fii la ñu dal euh, ci waaye nag fii moo gën a néew ci ñu fay dal daanaka ñi fi gën a doon mag ci tarixa yi ñoom ñoo fay dal mais nombre bi nga xam ne moo gën a bëri nag résidence daw ma naan bële la dal incha allah waaye fii mën nañoo ràññee ne euh, daanaka dana am lu mat 25 délégation ni ngeen gis a liggéey bi noonu lañ koy def muy euh, dana am ay coordinateurs yi fi nekk yoo xam ne dana am kuy permanent ci bunt bi Euh, di leen accueillir su ñëwee ñu jox leen euh, parking ñu gaara ci bunt bi boole leen ak euh, takk der yi ngir ñuy suivre seen i oto su ko defee ñu accueillir leen yóbbu leen ci seen i sàmbur boole leen ak responsable wilaya yi ngir ñu leen di toppatoo ci wàllu bernde yi ak yu demee noonu jox leen programme culturel yi ak yi nga xam ne mooy xew-xew yi fi am su ko defee nag boole ci toog fi di leen saytu ci lépp wuutu fi sëriñ bi di Cheikh Mamadou Mountakha ak Cheikh Modou Bassir ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ñoo leen waroon a teew dalal leen ci lépp loo xam ne daal moo war ci taxawaay ak sécurité ak saytu leen ci fànn gépp euh, daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi fi di leen taxaw ci ci fànn googu ànd ko ak wàllu daayira wilaaya ci wàllu restauration bi euh, ni ki doon tamit léeg-léeg su mbokk journaliste yi ñëw am wala ñu soxla ay renseignement ci ñoom dañ leen jox fiis ngir képp koo xam ne bëgg nañ laa laaj ci lu aju ci wàllu sëriñ bi wala relation yu dox sa diggante ak waajur bi nga xam ne moom nga fi teewal euh, ñu ñu bool la ak ñoom may wax ak yow nii daal su ma ko doon xool mën nañoo wax ne quatre-vingt-cinq pour cent ci délégation yi ñu war a dalal ñun ñëw nañ daanaka li ciy des ci ñu ñëwagul weesuwul daanaka ay dix dix dix pour cent ci ñi fi ci ñi ndax daanaka bu dee vingt-cinq délégation euh, dalal nañ 15 yi 15 yi wala 17 yi kon li ciy des du du du kon jàpp nañ na fii guddi ñun ñu war a dalal ñëpp incha allah danañ ñëw bu defee nag noonu la ñuy ànd ak ñoom ba di leen accompagner ci lépp ba ba ba ba ba waxtaan yi suba yi muy yi am ci suba waxtaan yi guddi gi ba ci cérémonie officielle yooyu yëpp daal ci suñuy loxo la ñu nekk ngir ñu leen di orienté ci ci loolu daal mooy liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma am na ñeenti groupe yoo xam ne. depuis 15 safar am na ñoo xam ne ñu ngi xëy 8 ba 9 heures am ñoo ñooy fanaan 15 safar 9 ba 16 safar am ñoo xam ne démb ci 16 safar bi ñoo yendu ba 8 euh, heures ci guddi am ñoo xam ne ñoo fanaan dikk tey jii am ñoo xam ne ñooy yendu ba ngoon am na ñuy fanaanat noonu lañ koy toppee ba le 19 incha allah amul benn yoon boo xam ne membre ma xadima ma du fi ñàkk nekk ngir teeru gan ñi di leen teral buñ dalee ba noppi it lépp luñ yittewoo ñu taxaw ci ngir wuutu fi sëriñ bi loolu daal mooy liggéeyu Muxaddamatul Xidma fii ci résidence euh, Xadim Rasul kon ñi ngi sant euh, sëñ Mouhamed mi doon jël vidéo bi di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu